suñu président yi moom. ak suñu ministres yi léeg-léeg dañuy am ay immunité. comme ni ko député de amee immunité parlementaire léeg-léeg nga dégg ñu ne la chef de l'État ministre tel ministre tel pour ñu àtte leen sax dañuy créer ab tribunal mm-hmm. defar la haute cour de justice. ñëw assemblée nationale installé ko lu ni mel ba léegi nii installé wuñ ko sax te assemblée nationale bientôt mu mot ñaari at bu ko defee nag loolu dinañ xaw a encourager yenn saay ñenn ñi pour wax ne man député laa man pour ñu déglu ma rek walla pour ñu yëkkati daan lal ci sama ndodd man il faut mu am immunité parlementaire bu ñu lalli député amuñ droit téye ko député amuñ droit à moins que ñu jàppale ci flagrant délit te bu nekkee ci session le règlement intérieur de l'assemblée dit que patati patata. Mm-hmm. Mm-hmm. nit nag mën na caa jaare di abusé wu. Mm-hmm. romb nit dóor joteeg policier wan ko de yow député nga mu arrêté la nga tàllal sa loxo ne ko man kenn du ma convoqué kenn ba def ci ab giraawaali. yooyu nag fii ci Afrique. war nañ koo xoolaat parce que def lu ne wéng te dara du la ca fekk nag loolu la tubaab di wooy impunité te ñii bokk na ca lu ñu gën a naqarlu te lu ñu gën a dund mu nekk victime mooy nit tooñ leen sosal leen dóor leen gaze leen tëj leen rey leen exilé leen dégg nga mhm. te mujjul fen loolu nag lu ko waral léeg-léeg nos gouvernants nous en Afrique ils sont tellement waxuma la bien protégés mais trop même bien protégés. hyper protégés. hyper hyper protégés. Hmm. bu ko defee dañ naan non moom mën na raw. Hmm. moom ministre tel wala moom président de la République parce que. Hmm. y a la constitution kii dit kii qui dit que qui dit. la constitution dit que ne veut pas diir que ni yow. lu la neex def. ana Sarko. damay laajte. yow buñ ko fi àtte. waaw Trump mi nekk en pleine campagne. Mmh. Mmh. tribunal. te sondage yi bu confirmé woo il le prochain président anam. du mmh. président sortant. ñaata yoon la fiy jaabante. bëri na diggante tribunal ba. bien protégé. par la sécurité américaine. mu dem wuy ji. waaw mais ici en Afrique on nous dit bon statuem vraiment mayu ko. mu def nangam. Macky Sall est allé jusqu'à dire am na ñoo xam ne boo leen àttee la mbir may jur bu ëllëgee vraiment ñoon leen àtte moo ko gën. moo tax am naa dossier yoo xam ne sama conc bi laa ci teg mais am na ñoo xam ne moom boo leen àttee ñoom garaawul ñoom yoruñu appareil. Mm-hmm. yoruñu ay taalibe yoruñu ay mbokk yoo xam ne mun nañoo jaxal réew mi. ñoom Ahmed Aïdara ak ñooñu boo leen tëjee ci kaso bi tamit bon du mujj fenn. après dañuy génn rek ñoom reprendre seen vie normale. ñooñu ñoom ñooy nit ordinaire yi man de ci diine bi ma bokk. di jullit di jullit nit ordinaire ak nit extraordinaire amul te loolu su ma juumul tamit mooy ne ci bible bi. ndax ñun jullit dañoo nangu dañoo dañoo sant ñu gëm téere yi nga xam ne borom bi wàccee na ko. injin geeg tooraat geeg alxuraan bi ñoo tolloo kon fii amul ay diw mi papaam mooy diw wala diw mi sëtu yonent bi la moo gën ci ñëpp donc moom lu ko neex na def te yonent ci boppam mbokkam jël ñu ne non mën na rëcc parce que comme que mbokku Seydina Muhammad la sallallahu alayhi day rëcc keroog lañ dagg loxo ba dëgg loolu dëgg. léegi nag comme que ñun nag nekkuñ ci ay mbirum charia ak yooyu ñun nous sommes dans un pays laïque. organisé fii orga ñun daal organisé nañ suñuy loi bay teg ministre pour ñu àtte la président pour ñu àtte la il faut waa pour haute waa kër Macky yi liñ fi def bëri na de liñ def ci réew mi. dara lu ko définir kenn xam ci lan la war a mën a tënku. haute trahison mën naa nekk ci tay la mi mais sàcc rek tay la réew déggoo ma de suñu ressources yi ni ko def nii loolu bu dul wor luy wor. wala mhm. loolu bu dul wor lan mooy wor nit ñi war a lekk amuñ lu lekk. nit ñi war a jàngi abri pro provisoire yi doon ay junni junni ci mim réew. nit ñi war a naan ndox. gisuñu ndox gisuñu ndox su ko ce que xam nga diggante ay ndàngaan sàmm boog ay Fimela ak ay nangam sàmm ñooñu dañuy toog juróomi at du ñu ndox. Hmm? waaw. Hmm? jëlal njoos moom tali bi rek wàcc dem ci biir. Ah, yaayam fa la Marème Faye dëkk. tund woowu noonu yëpp ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ndox ligg la gis nga bu robinet yi ubbee dañ jékki-jékki yenn saay yi rek ñu ne wuy sama ndey robinet bi ubbi na bu ubbee nii même pas une heure mu tëjaat vous pouvez rester deux ans. te ñu ngi ci vingt et unième siècle ndox nekk luxe. ndox ndox luxe la foofu noonu bu robinet ubbee comme bu courant coupé nii rek ba ñëw taal xale yuuxu yi. affaire bi noonu lay mel. c'est à moins de 300 kilomètres de Dakar su ma jóg. kon 300 kilomètres. matul Dakar de 94 kilomètres boo ci tegee 45 yegg. Mm-hmm. waaw même loolu bu dul trahison lan la. trahison nag ñun dañ koo jàppee rek comme li xew Mauritanie diggante lii ak lii yow daal koo bëgg mu trahir mooy trahir koo bëgg mu rëcc mu rëcc. affaire yi warul demee noonu de jaara. affaire warul demee noonu de. ay non moo fi nekkoon kii rek il doit être mis dans de très bonnes conditions dëgg la statut chef de l' état ancien chef de l' état statut yoo xaw ma lan ak lan ak lan ak lan mooy loolu nag bu dee ku ñëw rek def noonu ku ñëw def noonu ku ñëw def noonu. Hmm. la reddition des comptes bii ñuy wax nii attention de réew mi ñëpp seedeel nañ Ousmane Sonko ne boroom fulla ak fayda la mais joxe nopp lay def rek affaire bi du am. Hmm. ku nekk ngay lobby instant bii ñii ci sëriñ si ñii nii ci seeni mbokk ñii pour rek mën a des foofu nga ne yow da nga pour continuité. Mm-hmm. ñii opté pour rupture. rupture ñëw il faut assumer. Mm-hmm. li Aïda Mbodj wax. restez chez vous toog leen seen kër ngeen assumer opposition parce que ñii dañoo assumer woon seen opposition ba yàlla dikk. Mm-hmm. am ñu ca dee am ñu ca tëj am ñu ca gaase am ñu ñàkk seen liggéey am ñu ca fase am ñu seen jabar bàyyi. attention. am ñu ci ñàkk seeni i place seen i teraanga taxaw assumer di jaay oto nii ne man Ousmane Sonko laa àndal gars yi ñëw boom la nga perte sam xëy yow nag nga nekkoon ca côté bi nit ña jàppoon ne moom mooy lem ja ñaara fi ne boolu kaane boolu lem. Mm-hmm. boo ca jël sa morom jël ba ca des. mais mais mais jàppoon ni mu toll nii état bu bees bi fi nekk dafa war a jël ay responsabilités am ndax euh, da gis ni jamono ji ñu ëpp ci askan wi dañoo d'accord ñu càmbar nguur ji fi jógee tey ku ci dékk sa micro ñi ci ëpp bokk d'accord nañu ñu càmbar ndax ku ne gis nañ anam bi ñu yoree woon réew mi reddition de comptes ñoom annoncé nañ ko ne dinañ ko def ci yenn yi mais tey ñoom ci seen biir da ngay gis ñu commencé di génn di tuumal euh, ki nga xamante ni moo moo moo nekkoon suñu njiit di président Macky Sall dem bay tudd euh, benn jet boo xamante ni mi ngi toll ci 40 milliards yu ne président Macky Sall euh, jënd na ko ci kopparu Sénégal ak yeneen ak yeneen ndax jotul tey nguur gi fi nekk certes rafet na ñu rafetal euh, joxantale ngay euh, taaral lu jëm ci wàllum démocratie bi waaye nag lu jëm ci càmbax suñu alal est-ce que jotul ñu daal di jël seen ay matukaay bu baax a baax. premier ministre Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak seen parti Pastef. Mm-hmm. ak seen coalition Diomaye président. ak lépp lu xeetoo woon ci seen coalition bu njëkk ba sax di yeewee gën koo yaatal sax demal te arrière te ginnaaw. Mm-hmm. ñooñu amuñu beneen choix bu dul reddition des comptes. Mm-hmm. du am négociation du am deal du am dara. Mm-hmm. xoolal tuuti rek ci ay affaire layaam layaamal gis nga bu fi amee Ablaye Wade bi mu ñëwee le PDS était sa propre opposition. lay am waaw PDS PDS 2000 ba 2007 bi Abdoulaye Wade di dem présidentielle ñoom rek ñoom ñoo nekkoon seen opposition bopp ñooy xeex seen biir di histoire seen biir mais opposition bi dañoo toogoon sax di seetaan parti au pouvoir ñu naan ñii dañoo tàmm opposition ba nga xam ni ñoom sax ñooy opposé wu loolu itam moom mooy amaat ci biir Pastef ak ci seen biir coalition amul beneen choix parce que nit ñii ni jëlee nguur gi la ñii jëleewuñ nguur gi ci tappale déggoo ma de jëlee nguur gi ci layaam layaamal jëlee wuñ nguur gi tamit ci euh, maanaam ci ci ci tâtonnement non ñoom dañoo am benn objectif. Mhm. benn bii bu précis jublu ca chaque semaine presque benn dossier génn Ousmane Sonko lan lañ ko daaxee mais ay secret d'état lay génnee ay xawma lan ak lan ak lan ak lan ak dugg na fi gën a fi. Mhm. suman Sonko pétrole bii ñuy wax nii ñi ko njëkk songo fii. moom bokk na ci quatre-vingt-quatorze milliards yi dëgg loolu dëgg mhm. problème yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree yu am fii nii ci biir réew mii Ousmane Sonko ak waa partem bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko génnee ci mbedd bi mhm. mënuñu koo génnee ba pare sénégalais yëpp xam ne lii giraawaali gu toll nii mhm. ñoom ñu ñëw bëgg cee dëdd man man du ma toog sax ba xalaat ne peut-être nit ñi ñoo yaakamte te yaakaar tam bu bëree yaakaar. yaakaar bi moo bëri te dafa feeñ ci sànni xob bi. Mhm. fii candidat yi fi nekk candidat yi laa lay wax ni seen seen militants yi voté luñu leen. Mhm. les sénégalais ont pour la rupture. Mhm. et au tour. et ça kon foofu amul ay nii non man de ci li ma jàpp. man procédure administrative moo leen téye. mais du ma toog sax ba sama xel di xalaat naan. non ñii gaayen sa waaye est-ce que duñ def tam comme kii ay chasse à l'homme yooyu taamu ci ay nit singili leen dugg na fi a fi non Ousmane Sonko bi mu demee building administratif ni mu doxalee affaire bi après nañ ci dellu si mm-hmm. ci ngay xam ne non non non non non non non yooyu du am yooyu nag peut-être nag euh, opposition aussi day am. waaw. Mm-hmm. opposition bi commencé na de. mënta ñàkk non ñoom commencé nañ. non ñii li ñu waxoon nii yëpp naan non ñii ñii ñoo mujjee ci kilifa diine tey non lii mooy procès bi non ne xoolal wuy ma ñii wax loolu kenn bokk ci Pastef profilu Sonko la ñuy def commencé naan ah man de sama xel gaayen mbër maa ngi commencé découragé walaay bokkuñ Pastef dañuy ruube dañuy ruube bu ko defee xoolal nga gisaat keneen ku bokk Pastef ku ne mbër pourtant maa ngi yow nag xaw nañu nuroo xel tuuti de man mii dama xaw a sip action o acca bonjour lay daga hmm. fekk walaay du moom foo compte bala du moom ay intrus la intrus ñu leen rax ay noonu privé ay noonu privé mais man mais man moom li ma gëm mooy ba pare état sa waay état procédure la mhm. état processus la mhm. état mbind la ak kayit état ak opposition bokkul wallahi yenn saa yi da ngay ñëw bëgg affaire bi gaaw ñu ne la sa waay boo lancé marché telle date ba telle date il te faut vingt et un jours léeg-léeg lii pour préfet bi ci boppam approuvé ko rek xaaral dina ko yóbbu DCMP laaj avis ñu bind ko tontu ko ne ko lii ak lii mooy manquement wala RAS préfet bi ci boppam bindaat la ne la DCMP nee nañ point bii ak point bii ak point bii cahier de charge bi lii ak lii ak lii corrige nga corrigé yóbbuwaat mu jëlaat yóbbuwaat mu indiwaat correction préfet bindaat la DCMP du la bind de ne la lii ak lii nga defaraat yóbbu mu yóbbuwaat. ba keroog gars yi naan ko RAS sa waay lancer marché ak ñoom it seen ak yéeg wàcc ak patati patata rek sugu. mën nga fa perte ay weeri weer. wala genn wàll ak boo nekkee fenn dane ne xool projet bu du réaliser wu. léeg gis ñoo xam ne dañuy am xaalis am tout taxaw nii projet bi taxaw xaalis bi taxaw lépp taxaw duñ ko réaliser bi ana bi jeex. Ah. ndax ay procédure administrative. Mhm. fay salaire moo ci gën a ndaw. fay salaire. moo ci gën a ndaw te moom it procédure la laaj defar état yóbbu da ngay dem ca PR mu ne la il faut corriger ça ak lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. sa rubrique bi lii ak lii ak lii ña fa ne duñ fayee ko de mais ñi nekk ci 204 bi dañuy fayee ko lii ak lii soo melee ni man nag xamoo liggéey giir riir da nga naan Diomaye fay toog na le 2 président Diomaye Faye le 3. ceeb bi daa war a wàññeeku. attention. négocier des contrat aussi nekkaat beneen mbir loolu nañ ci dellu si waat pour pétrole bii nii ak licence de pêche yeeg gaz beeg or beeg ñoo ñoo ñoo du ko defee yële bi. doo ñëw rek nañ dem ba yërnu ji la nekk ca biir contrat yi. ba pare mën na nekk béton. mais luñ ko béton béton béton béton état amul ay ndaraan. loo ko béton béton état bu jëlee ay ndaraan am na ci mhm. ay ndaraan yoo xam ne xam nga fan ngay mujjee ak ñoom. Mhm. yéegal leen ci ay bato ngeen dem ba tribunal ba ca France. Mhm. ndaraan yi lu ñu am doole am doole am doole duñ ko toj. boo ko tojee boo ko tojee lañ nga nar a perte yow état est-ce que bàyyi woon mbir mi kon ne sax du tane. Mm-hmm. dañ naan la soixante quinze mille milliards ngay remboursé diw. waaw am na budget Sénégal ba muy fukk ak benn. jot na fi am. ArcelorMittal. Mm-hmm. ak Kumba Ressources. voilà Macky Sall tay la bagage laal ci vingt cinq milliards. Ablaye Wade ne d' accord ñii waroon a am lu mat sos juróom-ñaar fukki junni ci ay milliards nañ leen arrangé woo ba mbir mi ñëw ci ñaar fukki milliards ak juróom waa d' accord mais vingt milliards loi de finances rectificative moom la ñu dugal suñ cinq milliards yi anañu seen jotaay la ko waxee woon <laughs> état. dina waar. Mm-hmm. léegi nag il faut communiquer. Mm-hmm. il faut communiquer. Mm-hmm. Euh, en ce sens di communiquer foofu pour soutenir nos nos nouveaux exact gouvernants mm-hmm. nos nouvelles autorités mm-hmm. parce que bu ñu ko defulee mm-hmm. ñi opté woon pour rupture bu ñu ko defulee ñee ñoom fee la ñuy toog di ruube ah il faut ñu xam ne da nga ñaari côté fi ne de journaliste yi nga xam ne ñoo d'accord ci rupture ak journaliste yi nga xam ne moom seen taxawaay ñëpp gis nañ ko anti yi samp seen tànk ne Macky du dem